ganu suba si muy Souleymane Diallo jiite euh, association internationale Otra Africa ñu koy dalal di la nuyu ci réew mi. waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm si invitation bi. Mhm. Souleymane tey euh, li ni mel euh, muy Boubacar Seye mi am bàyyi négandiku tey jii nan ngeen jàngate mbir mi. waaw ñuy sant yàlla di gërëm askanu Sénégal yëpp ñu nekk ci biir dëkk bi ak ñu nekk bitim réew si seen takkute ak euh, jàppale bi ñu ànd ak euh, Boubacar bi ñu tegee loxo Boubacar boobu ba léegi mm-hmm. euh, si dañu yëg askan bi si sunu ginnaaw ñoom ñëpp ñu takku ñu ànd ak ñun si si loolu Boubacar nag bàyyi nañ ko bàyyi ndëgëndiku waaye ñu li ñu daan xaar mooy ni ñu bàyyi ko yëf yi yem fi benn yoon parce que Boubacar euh, liñ koy toppee euh, waxul deful loo xam ne war na mën a nekk kaso ba ñu koy toppee yenn yi mais nag euh, ginnaaw lii la yàlla dogaloon nangu dogalu yàlla bi rek la ñu koy sopp mais alhamdulilahi rabbil alamin Boubacar génn na yaramam dafa xaw a sutante tuuti ba fu mu nekk nii waxtu bi may wax si yow nii sax mu ngi ci ci benn l'hôpital privé bi ci ci biir Ndakaaru parce que bi mu génnee si kaso bi euh, yaram bi dafa jagari dafa sukkante mais ñu ngi sant yàlla bi ñu ko génnee foofu waaye nag euh, loolu la si euh, ndogalu suñu borom la amuñu leneen liñ si war a mën a mën a teg mhm. ay joxe ay xibaar yu dul dëgg mooy li nga xam ne moom lañ koy toppee tey yéen dégg nañ leen ngeen ne Boubacar Seye li mu joxe dafa laajte rek fu ngeen teg li ni mel ndax àndu leen ak liñ koy toppee waaw xam nga bi ñuy njëkk a wax Boubacar bi mu demee bitim réew saay-saay waxul dëgg waaye yàq nasal euh, Boubacar am na ñu génn ne Boubacar euh, dañ ko tere woon génn dëkk bi alhamdulilahi rabbil alamin ci biir waxtaan wane nañu Boubacar kenn mësu ko tere génn dëkk bi dafa wàññi sax fan yi mu doon def bitim réew pour ñibbi si ñëw dem wuyu ji yoon donc mhm. euh, takkal boobu ñu ko doon takkal bu njëkk jotul am ñu ñëw ñu teg ci Boubacar dafa dafa sos euh, euh, maanaam diffamation ñu ñëw ne bon ginnaaw diffamation la ñu wax ni ñu wax Boubacar kan la diffamé et ba tey fu ñu toll nii alhamdulilah si rabbil alamin encore ñuy santaat ci yàlla mooy ni que amul doomu aadama amul benn bànqaas bu ñëw taxaw ne Boubacar man la sosal ñu ñëw teg ci ñu ne dafa tas xibaar bu dëgguwul bi ñu waxee loolu tamit ñu ñëw. Euh, Boubacar li mu wax mooy ni que moom dafa am ay documents yoo xam ne da ko partagé ak Union européenne et yooyu euh, mu ngi si loxoom euh, loolu tamit Union européenne génnee baxa fir firndeel wax sa Boubacar fi mu yemoon ñoom sax dañ ko dañ ko weesu génne yenn mandarga yoo xam ne ak yeneen lim si koppar yoo xam ne moo ëpp li Boubacar waxoon donc loolu gu bataaxal boobu day dëggal rek li Boubacar wax donc foofu tamit euh, tes xabaar bu dëgguwul amul foofu ñu siy sant yàlla nag euh, jaam bi euh, ndogal rek la mën a nangu mais ñun lan moo dalal suñu xel te lan moo ñu wax dëgg yàlla soob si mbir bi mm-hmm. mooy bi njiitu réew mi moom si boppam bi mu toogee Euh, ne moom si boppam ni nga ko defal bataaxal bu jëm si mbir bi ma koy firnde si ñaari wax rek euh, Boubacar dafa ne nañu saytu mbir yi maanaam suñ koy jël siiw si kàddu moom dafa ne ñëw leen ñëwal daanaka mu ngi mel ni comme mu ne la yow ñëwal def nangam njiitu réew bi nee la kaay def nangam daanaka wax yi moo xaw a wute rek mais si sotti bi benn la donc ginnaaw njiitu réew bi jël na ba moom si boppam mu ne nañ ko càmbaral mbir yi te Boubacar doon ne nañu auditer mbir yi defe naa sotti si ak def euh, te ñun ñi doon waxal tey bu si tuuru Boubacar de suñu xool féex na suñu xool féex na parce que munoon nañ ko layal loo xam ne euh, day am laam-laame ba am laam-laame si bopp njiitu réew nag leer na si boppu njiitu réew yi ba mu ne moom si boppam nañu càmbar mbir yi yaakaar naa ni waratuñu toppee woon dara Boubacar ba di ko def ay bàyyi ndëgëm fu mu nekk ni li ñuy xaar mooy ni koy mbir yi ñu yemale ko fi ñu wax ji dootul jub ñu yemale ko fi Boubacar jot boppam amul ay bàyyi dëgg di ko mu toppatoo dem def ji leneen li mu war a def mooy maanaam si suñ koy dégg si wàllum yoon. Mhm. mooy lu ñuy wax euh, classement sans suite. tey jii classement sans suite boobu nga xam ne yéen a ngi koy ñaax Union européenne mu mel ni dafa tontu Boubacar Sèye indi ay leeral ndax loolu doyu leen ci firnde. waaw xam nga bi ñu si njëkkaan sax am na ñenn ñu doon ne Boubacar euh, Union européenne euh, da ko weddi da ko weddi mais ku liir waaw ku liir communiqué Union européenne bi puisque boobu léegi Union européenne àdduwul si wax ji Union européenne Boubacar dafa ne man jot naa mandarga wu Union européenne buy wax ni dugal nañu nangam si alal bi. Mhm. bu Union européenne ñu toog ay fan ñu commencé laam-laame non dëgg la du dëgg Union européenne wax na si walla waxu si ay fan yu ci rek Union européenne génnee bataaxal loolu rek génnee bataaxal bi rek firnde ni que ni que am na fu Boubacar téye woon mais ñoom dañu ñëw ne xayma bi Boubacar wax moom la Union européenne doon dugal ci réew mi xayma boobu dafa ëpp te ban te ñoom ci bataaxal bi loolu lañ ci firnde loolu rek dafa fekk ci jox dëgg Boubacar léegi nag affaire bi du kii moo am dëgg wala kële moo amul dëgg Boubacar dafa laajte nañu saytu mbir yi nañu xoolaat mbir yi ñu xam kan moo si jot ñaata la si jot ak fan lañ ko dugal ndaxte kenn réeréewul mbir mi ki mhm. ku ko weddi demal nga taxawu garage Colobane fii wala nga dem taxawu garage Petersen nga laajte ku la neex wala nga dugg ci biir banlieue bi nga laajte ku la neex nga ne ko ndax Union européenne nekkul du dugal alal si euh, askan bi ngir xeex mbëkk bi loolu soxlawul laam-laam yi loolu jarut a weddi. Mhm. loolu moom ku ko weddi rek dafa fekk da nga bëgg a lay rek. Mhm. donc loolu fës na ni que union européenne day dugal alal. léegi nag pour ñu mën a arrêter mbëkk mi ñun mi nga xam ne ay acteurs lañu ñëw ciy liggéey ñoo si yëngatu ak ñi yore réew mi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale ñoom ñoom ñoo ñuy jàppale ak ñi nga xam ne delloo nañ leen ci dëkk bi ñu jóge ci mbas bi ñun ñëpp mooy yi ñuy wax acteurs yi ñun ñëpp dañu war a mën a toog mhm. waxtaan saytuwaat mbir yi ñu xam alal dugg na fi fan la dem ñan ñoo ko jot pour ñu mën a xool nan la ñu fexee ñu nekk benn say xeex mbëkk mi parce que nag mbëkk bi kenn weddiwul ni ko mbëkk baa ngi fi di rey suñu doom yi di reyaat suñu rakk yi mhm. donc loolu dañu war a xool nan la ñu jàppalee état bi ñu fexe loolu ñu gaañ ñu faj ko nu mu gën a gaawee donc si loolu wax dëgg yàlla Boubacar daal Euh, Sénégal bu ko santulee gërëm ko takkal ko ay ay ay ay médailles waruñu ko xokkatal ba di ko noppiloo. Mhm. tey jii yéen lanceur d'alerte yi ndax jotul ngeen euh, soppi anam gi nga xam ne noon ngeen di euh, maanaam andi xibaar yi ndax tey jii lu bari mën na nekk seen ndodd. waaw xam nga soppi niñ koy defee weesuwul ñu woote waxtaan. gis nga euh, fiiraange fiiraange kenn mënu si dara mu ngi mel ni rek comme li may wax euh, jigéen bu bëgg a tas sëyam jigéen bu bëgg a tas sëyam bàjjen yeeg yaay yeeg dëkkandoo yëpp bu ñu ñëwee toog tant du dafa bëgg a tas sëyam rek kenn mënu si dara donc nit ki boo koy xoolee xoolu fiiraange bu yë bu yëkkatiwoon lu restant la da ngay taxaw ne lu ñuul kooku la yëkkati. Mhm. te diggante ñun ak ñu yore réew mi waru fiiraange waru am suñu diggante ñun ñoom la ñu liggéeyal ñoom ñun la ñu liggéeyal benn say la. ñun dañuy yóbbu ñoom dañuy indi donc dañu war a ànd defandoo liggéey bi donc amul si dara loo xam ne war nañ ko changer xam nga lan la ñu war a mën a fexe. Hmm. ñuy toog di waxtaan di déggoo di ànd si benn yoon mais tey boo waxee dara ñu te tënk la noppi loolu tuuti loolu xotti sa woor ma ëllëg ci biir boo xamee dara loo xam ne di indi njëriñ di réew mi. Hmm. da ngay da da da ngay nopp da ragal. ndax am ngeen cadre juridique bu leen aar. ba li ngeen di wax euh, tey ji euh, ngeen teg ko ci yoon euh, cadre juridique weesuwul nga nekk structure bu bu bu bu structuré bu légal da xool tey coow bi bu mu jugee amul lu ñu waxul ci horizon sans frontière ndax horizon sans frontière am na accord de siège horizon sans frontière dugg na fii génn na fii horizon sans frontière ONG européen la ñaata ONG ñaata association ñoo nekk fii ci Sénégal dans le cadre de la coopération au co-développement maanaam benn tànk fii Sénégal benn tànk nekk bitim réew ngir ñu dimbalante loolu mooy ko développement ñaata lañ ñoo ñoo nekk fii si dëkk bi ay doomu Sénégal nekk si bitim réew di tabax ay jàkk di tabax ay école di def ay teen di jàppale l'école yi loolu ñaata lañu est ce que ñooñu ñëpp am nañu accord de siège donc wax jooju xam nga cadre juridique bi weesuwul nga am association mu légal léegi nag bu nekkee dañ ko bëgg a sotti wala dañ ko bëgg a defee lay jox benn exemple fu mu nekk nii tey fu ñu toog nii si guddi bi ñu ngi liggéey si si xibaar yi ñu jot mooy ni que dina am benn roplaan buy jógee euh, Madrid ca mhm. Espagne. Mhm. Euh, ñaar fukki ñaar fukki fan ak ñeent si weeru février bi ñu nekk. Mhm. day jaar Tenerife jël fa ay xale pour mën leen euh, renvoyer expulser leen biir Sénégal delloo leen biir Sénégal. mais ñun am nañu xabaar boobu est ce que am na xabaar boobu est askan bi am na xabaar boobu donc ñun bu ñu tënkee si li ñuy xam ñu war ko mën a partager ak état pour état mën a préparer wu mën a loolu bu balaa muy dal noonu di ko bett ñun bu ñu noppiloo si loolu day fekk ni que rek xam nga diggante bi mooy moo moo ñagasul mais suñu diggante dafa war a ratax ratax boo xam ne lépp lu ñu leen wax amaana nag mooy li may wax ndëgam ñoom dañu def di juum. te ñoom la ñu jox bànkaas jox alal jox leen lépp li war pour ñu mën a kii njumte du wees njumte amul xaj amul seen ñoom mën nañu juum comme ñun mën nañu juum donc ñun bu ñu juumee ñu dal suñu kaw te ñoom bu ñu juumee kenn du dal seen kaw ñun ñu mën a wax jaarle fenn te ñoom lépp loo wax ak ñu weddi ko donc loolu moo warul dafa ñun suñu diggante dafa war a ratax dañu war a ànd defandoo liggéey bi mu nekk benn tey jii nan ngeen jàngatee politique étrangère maanaam jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, moodu moodu yi émigré sénégalais yi plutôt. dégguma bu baax question bi. ma ne nan ngeen jàngatee politique état jëm ci suñu ñoñ yu nekk bitim réew. waaw xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne boo leen laajtee dañ leen ne politique migration Sénégal. Mm-hmm. amul ñenn ñi sax dañu dem ñenn ñi dañu ne dañu lajji ñenn ñi dañu ne amul mais boo xoolee Boubacar. te bi muy yëkkati wax ji si waxu alal bi dafa ne koppar yooyu yëpp fi ñu ko dugalee war nañu mën a toog def euh, taxaw saytu xoolaat koppar boobu fan la dugg ñan ñoo ko jot ak lan lañ ci def pour ñu mën a dem ci kanam donc pour ñu mën a dem ci kanam mooy ni que am nañu jàpp ni que politique migratoire Sénégal dafa lajji mhm. léegi nag su nekkee loolu am na man de wax dëgg yàlla jàppuma loolu dama jàpp ñu ngi def amaana ne lu ñuy def dafa matul wala ni koy defee moo baaxul mais loolu yëpp su amee man dama yaakaar ni que tey fu ñu toll nii ak affaire Boubacar Seye bi sax war na mën a yee état bi parce que am na ñoom loo xam ne xam nañu ni tey wër na leen mingi que ce président bu fexee ba woote ñu nañu ceytuwaat mbir yi ñu waxtaanaat si mbir yi kon loolu war na mën a firnde ni ko war nañu mën a toogaat ñëpp ñi yore réew mi ñi dimbali. Mm-hmm. acteurs yëpp ñu toog waxtaan waxtaanaat pour mën a ut benn politique de migration bu cohérent bi nga xam ne képp ku si mënti nekk di nga ci gis sa bopp ak nag foo mënti nekk parce que man damay ne tool bu yaatu la tool bu yaatu la ki am alalam di si def kii di jot alalam ki nga xam ne dafa toog fële di xaar ñu accompagner ko ñu ñëpp ñëpp ñëpp mbooloo bu am fukki fukki nit. Mm-hmm. ak mbooloo bu am téeméeri nit warul am xaaj ëllëg seen. ku si nekk wa waar bi ñu la jox si tool bi war nga ko mën a béy te doo gàllankoor sa morom donc politique moom wax dëgg yàlla war nañu gisaat encore gisaat encore fexe na lu ñu bindee mandarga boobu dëgër këj si wàllum politique et politique migratoire. Mhm. Euh, tey jii tamit ndax mbiru Boubacar Seye du tax ngeen teg teggi seen tànk. waaw dina am nag ñu mu tiital parce que bu nekkee da wax li ngay xalaat wax ni nga ko bëggee. te charte réew bi war na mën a permettre loolu euh, te boo waxee rek ñu toroxal la euh, wax dëgg yàlla teg la ay daan yóbbu la kaso dina am ñenn ñoo xam ne da leen di mais damay wax nii sunu sunu njiit yi sunu kilifa yi nañu moytu loolu parce que loolu buñ ko defee bu ñu bëree ñëpp dañu dem dem dem si yoon bi ba bu ñu gistoo duñ bu ñu gëstoo duñu gis kenn ku nekk seen ginnaaw te su boobaa nag su boobaa la ñoo xam ne ñoom dañu réer lay dox dox dox ba nga tourné ba nga réer nga gëstu gisoo kenn kon doo am kenn koo laaj su boobaa loolu baaxul euh, mbiru bu Boubacar Seye bii war na yeete encore ba ñu xam ni ñun dañu war a ànd ànd nekk benn ànd bokk yoon bi ànd bi waxtaan di yëkkatandoo di tegandoo loolu mooy kii mais bu nekkee ku wax rek ñu ne la tëb toroxal la noppi loola dina am fenn foo xam ne bu ko bu ko kiiwee mais nag ñun euh, Euh, si si si li ñuy def la bokk bu nekkee réew mi. Mhm. ak defar rek moo ñu tax a jug. man de dama jàpp ni que mbiru Boubacar Seye mi njuumte la njuumte la encore une fois de plus euh, njuumte euh, état la nañ ko corriger ñu classé dossier am sans suite ñu xool ubbiwaat yeneen kii yoo perspective yoo xam ne ñun ñëpp war nañu mën a ànd liggéey doo bu nekk liggéey bu rafet. waaw kay Souleymane Diallo la moo jiite association internationale Otra-Africa ñu lay jaajëfal bu baax a baax Souleymane. man tam maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp.